ni nga ko waxee yaa ngi joxoñ baaraam politiciens yi tamit am nañ ci responsabilité comme parents yi am nañ ci responsabilité est-ce que xale yi peut-être du ñuy wax ni discours violence viol euh, violent boobu noonu nga xam ne moom la ñuy jël di ko exercer si ñoom comme par exemple bi ñu gisee démb le cas de du président de euh, euh, Benno Bokk de groupe parlementaire Benno Bokk ak ay mbiru ñing dem wax jum wax yooyu noonu tamit buñ ñu ko xoolee forme de violence. déglu ma ko. waaw ah, peut-être dégluwoo ko kon. bu ma ko dégloo si c'est bu ma ko dégloo. Mhm. bu nekkee c'est violent muy ay miiru. saaga la def. dafa insulté. dama ne ndey dama ne bu nekkee loolu am na man Omar Sow bu nekkee loolu am na ay loolu am na laa wax de parce que man déglu moo ko bu nekkee loolu il doit présenter ses excuses publiques parce que c'est le président du groupe parlementaire Benno et c'est un député. député pré député man gis nga man nu ma gisee nii Benno Bokk Yaakaar laa far. Mhm. mais nit ku ne ak lu ñu la yaree Benno Bokk il faut ñu xam ne tamit. Mhm. ku nekk président yaram bu ñu ko yar ak tegginam. yaru ku nekk dafa am njaboot. Mhm. ci biir njaboot gi day jëlee ku nekk feneen fu nekk nome la. Mhm. léegi ku nekk nooy ni ñu la yoree sa kër. Mhm. noon ngay mën a ñëwee ci parti bi. noon ngay ñëwee ci coalition bi noonu ngay ñëwee ci assemblée nationale bi noonu ngay ñëwee ci ministère bi noonu ngay ñëwee ci présidence bi noonu ngay ñëwee ci yenn direction yi. donc souvent c'est pas de la toujours loolu mooy refléter toujours ne ma la xale dina ñàkk yaru. mais mag tamit dina dina dina dina ñàkk yaru loolu yëpp ci bu ñu ci delluwaatee rek da ngay ñëwaat toujours ci éducation de base eh. parce que am na wax yoo xam ne nit waru koo wax. jëfin yoo xam ne nit waru koo jëf xam naa ne peut-être bu ko defee peut-être mun na am anam yoo xam ne defee na ko peut-être tey ko seytaan mën na ko dugg mais man bu nekkee moo ko def na jéggalu xam ne moom tey vitrine la ñëpp koy seetaan te moo yor suñu groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar ñun ñun sénégalais ñoo ko fal en tant que député ñu koy fay suñu suñu suñu indemnité de député donc loolu war war dafa war a montrer beneen image mhm. man en tout cas man li may wax toujours sama wax c'est vrai am naa xadaar naa tiital mais toujours nañu xam ne Sénégal ñun ñëpp benn bopp lañu kenn mënu koo xaar ñaar euh, dëkk lañ nekk tey élection locale la ñuy wax euh, muy Diouf Sarr muy Barthélémy Dias muy son Soham Wardini ñoom ñëpp dañoo jóg pour liggéeyal Sénégal ku ci nekk dañu yor programme présenté ko Sénégalais yi te Sénégalais yi boobaa ñooy voté donc nañ xam ne ndam li génnu Sénégal jarta xeex jarta xuloo muy Bamba Fall tamit maa ngi koy appel à la retenue parce que tamit souvent y a ben autorité ils ont perdu les élections d'avance ils de obligé des formes de violence